des menaces qui étaient proférées un peu partout et menance yooyu ci benn camp la doon jógee léegi ñooñu bu ñu yoree tey le pouvoir de décision ñu jël ñii ñoom ñëpp dugal leen ci oto ñu jubali Tamba ñoom ñëpp mais loolu am na lu muy wund et il faut faire vraiment attention Sénégal quand même euh, du garderie d'enfants du école primaire nekkul vraiment quelque chose comme une petite entreprise c'est un pays un État une nation ñu am benn vécu boo xam ne Euh, dañu jóge fu sori ba yeg si fii donc bu ñu ko yoree dafa am benn façon de procéder mais lii boo génnee ci biti man en tant que journaliste devant d' autres confrères bu ma ko waree argumente sax dina jafe ci man parce que ñooñu bu ñu ma tagalee ne ñi ñoo fi yoroon affaire judiciaire yi tey ñóbbu leen Tambacounda ñoom ñëpp en même temps quand même loolu kenn mënu ko justifier ak lu nomination yi rafet rafet bu bu Ibrahima Ndo yi rafetlu nañ ko yeneen ak yeneen yi rafetlu nañ ko ñi ñu jox promotion yàlla na leen jig parce que kuy liggéey bëgg nga promotion mais lii da koy yàq sa fait tache d'huile et booy jiite am na ci yoo xamante ne il faut les éviter parce que ce sont des polé polémiques inutiles day tax li nga def si lu baax da koy nëbb te dal na fi njiit yu bëri am na fi ñu liggéey lu rëy mais malheureusement ci ay détails yu ndaw nit ñi di leen ci mere ñu ciy am benn mécontentement te pour man mënoon nañ ko éviter ñii mënoon nañ leen ventiler mais niñ leen jëlee en groupe comme ça yóbbu leen ci benn région pour man c'était pas Euh, bien futé te ñëpp xam nañ ne euh, secretaire général conseil supérieur magistrature dañ ko dindi yàggul dara boobu yëpp am on avait les prémices que y un chamboulement bu waroon dugg ci magistrature et tey jii loolu moo ñëw tey mais quoi qu'il ad qu'il advienne euh, Sénégal restons républicains que que bu kenn am impression que ne on a la justice des vainqueurs parce que loolu c'est pas un état de droit te yaakaar naa yéen ñii bi ngeen di ñëw c'était pour restaurer un état de droit ndax gisoon ngeen peut-être des choses yu doon am ci réew bi ñu jàppee ko injustice mu bëri mu am ñu bëri dañu révolté ci loolu jóg ba dugg ci langue politique mais procédé yooyu nga xamante ne moom lañ fi gisoon ñenn ñi révolté ba dugg ci politique te xam naa peut-être boole na la ci lu la dugal procédé yooyu ngir yàlla bu buñ ko vivraat bu ñu gis ne tey camp bii moo nekk au pouvoir ñi ci des dañu war a taxaw di seetaan te duñ leen boole ci dara. c'est le peuple demande. c'est le peuple loolu ndax peuple bii dafa am ci ñoo xam ne jàpp nañ ne seen situation sociale mayu leen ñu mën a arrivé ci yenn poste de responsabilité wala ñuy inspiré di tekk ci réew mi mais il faut que ça s'arrête depuis 1960 c'est l'impression qu'on a léegi nag loolu pour man c'est pas en 2024 que lañ war dund yu mel nii donc il faut les éviter et nomination yooyu nen ne d'accord gouverner avec ses hommes je suis bel et bien d'accord parce que dañuy bañ ci dëkk bi lu ñuy wax fecc ci kóllëre Mm-hmm. ingratitude kenn kenn du ko kenn du ko saluer dans ce pays parce que ay valeur la ci réew mi mooy toujours da ngay xool ñi la jàppale ak ñi ànd ak yow ba dara dul dara bés bu dara dee dara nga bokkook ñoom oui waaw waaw loolu est-ce que c'est valable dans la gestion d'un État pour man loolu valable ci yori ni réew parce que euh, réew amul culeur warul am xeet warul am lenn loo xamante ne mën nañ koo màndargalee yori ni réew pour man bu ñu yor réew dañ koy yor pour tout le monde mais duñ ko yor pour ñi di ko xañ ñi ci des. déjà looloo nekkoon esprit wu appel à candidature. par rapport ak euh, bi ñu waxoon di ko ko prôné mais maintenant loolu c'est rangé aux oubliettes parce que nomination yi fi am yëpp xaw ma lu ci desati sax daa mel ni yëpp presque. dem na de ah, <laughs> bu desee de xam naa ne yooyu yu parapublic yi la comme ni ñu koy waxee te parapublic yooyu est-ce que yooyu pouvoir de décision yi ci am dina demee noonu. ambassade y a yi yu ñu rappelé yoo xamante ne amaguñ sax officiellement benn benn euh, mouvement bu ñuy net bu ñuy mën a jàpp ne lii moo am ci diplomatie bi mais ñu bëri rap kii ne rappelé nañ leen mais yooyu noonu yëpp je pense que euh, Sénégal nekkuñu ci réglement de compte parce que xeexoo beeg yii nii yëpp jëmale wuñu kanam dañu nekk ci monde boo xam ne enjeu yi mooy développement mooy émergence mais lii ñu bëgg a commencé kenn du ci liggéey et puis ces ñuy ubbi daf ñuy revenir at ci traque des biens mal acquis le Sénégal a gagné dans la traque des biens mal mal acquis loolu buñ ko xoolee rek ndax jarati na ñu fi ubbeeti ay dossiers yoo xam ne day am relan wu chasse aux sorcières am relan wu euh, règlement de compte. ou justice des vainqueurs aussi on le mérite ci ci yenn rapport on n'en disconvient pas ku jël lu réew mi non seulement fay ko sax mais buñ ko mënee méngaleeg sa durée de vie nga di ko fay di ko fay ba kii loolu am problème mais nag. connotation politique bi ak réglement de compte bi ak nii ñuy defee chamboulement ci justice ak choix yi yenn nit yi est-ce que nit ñi aussi mën nañ ko dindi ci seen xel c'est ça la question nen parce que ni ni affaire yi commencer ni bu ëllëgee bu loolu amee aussi mun nañ jàpp ne justice bi daf fi toogal ñi fi nekk tey parce que ñii ñu jëlee fii xëy na dañ fi toogaloon ñi fi nekkoon dem et loolu ci nomination ak mode de nomination bi rek ci la nit ñi mënee am yooyu présomption ñu nomee kilifa ñu nomee nit dof mu def tole loolu jaru ko parce que ñoom muyee nañ la le maillot pour tey jii ñii accéder au pouvoir mais ma fàttali la tey jii reddition des comptes bi lu ko fi indi ce sont des présidents yu fi ñëw am confiance ci ay nit dénk leen responsabilité ñu def ci naka su dul noonu gouverne donc nañ continuer ci logique boobu ku nekk di gouverner avec saison ñooñu aussi di def des détournements de deniers publics di saax saaxi alalu réew mi bu ëllëgee ñuy waxati reddition des comptes parce que ñii di ko def yépp il bénéficiait de la confiance du chef de l'État bu ëllëgee képp kuñ ci désigné comme coupable moralement ki leen fa tegoon kooku am na ci part de responsabilité parce que moo leen tànn moo leen dénk loolu nag buñ ko bëggee revivraat avec ces mêmes nominations kon bu ëllëgee aussi ñuy defaat éternel recommencement éternel recommencement parce que toujours ñi la jege rek ñoo sañ a def lenn li mais ñi amul ci yow proximité wala amuñu benn légitimité politique ci sa kanam sañu ñoo def leen lii loolu aussi il faut le prendre en compte fii ñi ñu fi désigné ñu ne ñii dañu jël réew mi yépp dañuy jàpp ne ay nit yu jege njiit yi la ñuy doon donc à quoi bon aussi gouverner avec ses hommes su fekkee ne après ñooñu ñoom ñooy këpp keesu nguur gi parce que li liñ naan l'expérience c'est la somme des erreurs suñu xoolee Sénégal li ñu jël yépp ci passé bi est-ce que waruñu servir aussi de leçon pour avancer nen ne mais suñu ñëwee les mêmes méthodes les mêmes procédés et après on va subir les mêmes conséquences et gouvernance clanique moom deux alternances yi ñu fi am yëpp wane na ne du mën a prospérer tu vas diriger avec ton monde et l'autre monde sera en face de toi bu yàggee nag rang wu monde boobu bu gënee rëy rek yow dañ lay éjecter indi sa morom loolu rek moo ciy am ku jàpp ne yow boo gouverner ak say nit loolu mooy conforter sa pouvoir et que moo la fi yàggal kon 2012 changement du am 2000 changement du am parce que ñi fi nekkoon xëy na tegoon nañ fi ñu leen jege de sorte que jàppoon nañu ne ñooñu noonu ñoo leen fi yàggaloo au pouvoir loolu rek moom pour man ce sont des leçons à tirer et que cette nouvelle génération en fait, n'a pas le droit de répéter ces mêmes erreurs. je pense que lu ñu mën a muñal ñi fi nekkoon avant nee ñooñu mënuñ ko muñal ñii tey nga xam ne génération nouvelle technologie yi lañ génération mondialisation lañ bokk xam nañu les enjeux de l'heure ak li am ci àdduna bi on par peut pas leur pardonner ñuy répéter les erreurs des anciens quand et par rapport à ces erreurs Ndeye Fatou je pense que. Euh, est-ce que c'est le fait de gouverner avec ces hommes moom mooy indi euh, erreur yooyu mais peut-être au-delà de ça il faut autre chose parce que euh, fépp foo manti dem aussi je pense que loolu moom euh, soo gagné tu prends ñi la ñi la ñoo ñu ngay avec c'est avec eux que tu gouvernes mm-hmm. ba mu des ci yenn poste de de responsabilité yi parce que waxoon nañ ko ak président de la République Macky Sall que dañoo politiser woon l'administration ça on peut être d'accord que yenn poste yi c'est parce que sa nit nga gañandool nga xeexandool que ñoom nga fay teg Mais sinon, pour le reste, tu gouvernes avec tes hommes. Peut-être ce qu'il faut changer, et, et, et, ça, je pense qu'il faut des textes forts, des lois mooy ñu encadrer certaines choses pour pousser nit ki à ce que yenn détournement yi mën a am ñu ñu ñu teg ay clauses fortifiées euh, suñu yenn yenn loi yi yenn institutions yi ñu xam également comment ça se passe et am na sax am na ça existe mais qu'on puisse les appliquer normalement peut-être foofu la ñu war a la ñu war a mais moi, personnellement, je pense qu'on gouverne avec ses, ses, ses, proches. Mais le fait de gouverner avec ses hommes, moo waral ñuy def des fautes de procédure ndax du ñu mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mbaa xam nga ni rapport yi li